الرحمن الرحيم صلاة الله وسلامه على أكمل الورى خلقا وخلقا زهرا والمثل قد لم يرى ولن يرى في الشيم سيدنا محمد وعلى آله وخير خدمه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم الحمد لله وصلى أبدا ala allazi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi zawin nawalil wali bokk jullit yi bokk taalibe yi gannaaw ba ñu nuyoo di leen siyaare di leen ndokkal ci weeru sell wi ñoo ngi ñaane ki nga xam ni mooy xalifatu am tariqati muridiya di sëriñ Muntaqa Mbàkke dañu yàlla sun borom subhanahu wa taala bàyyi ko fi tam ànd ak wér nga xam ni yéene na ko liggéey ku tedd mu mottali ko ànd koog taalibe yi di ñaanal mboolem xalif ci réew mi waaye delluwaat di fàttaliwaat suñu bopp di leen fàttali ci li nga xam ni moo ñu war sunu diggante ak di dox suñu diggante ak suñu borom subhaanahu wa taala tey nag ñu dellusiwaat di fàtte suñu bopp ci li nga xam ni dafa nekk suñu kanam te jege lool muy benn xeet ci azaka yi yi nga xam ni day jaado ci jullit bu nekk mu génne ko mbaa ñu ko ko te loolu daanaka muy zakatul fitre muy murum koor ci niñ koy waxe doon loo xam ni doon na farata gannaaw ba nga xam ne jullit yi ak yonent bi sallallahu nañ ci xasatu badarin ci koor googu njëkk mi jeex sunu borom faratal ci jullit ñi mu mel ni kon murum koor doona loo xam ni kat jar naa jàngat ndax dafa sedd ko ci ay pàcc bi ci njëkk mooy ki nga xam ni dafa war ci moom mu génnee ko ak ñi nga xam ni ñoom lañ ko war a jox ak li nga xam ni ci lan lañ ko war a mën a génnee ak ci ban waxtu lañ ko war a génne kon rek ñu bëgg ci indi ay tënk yu gàtt rek kon ki mu war ñu xam ni kat képp koo xam ni ab jullit nga rek na nga xam ni lii di muurum koor da lay daal di war waaw képp koo xam ne ab judd la rek donte koo xam ne dafa judd liir bu judd ba am ñaari fan sax dees ko koy bépp kilifa yi nekk ci kër yilif kër gi ñu nga xam ne yàlla ni dundal yàlla ni génneel li nga xam ne moo di muurum koor donte soxna si si kër gi sax dalaa ëppale am am muuru koor yi nga xam ne kon borom kër gi la war ñi nga xam dañoo nekk ci kër gi ay tuut ki yor seen dund di seen kilifa di seen waajur moo ko warloo kon mel ni daal kon du wàcc ab ab jaam gannaaw loo it ñu xam ni jëm ci li nga xam ni ñoom lañ ko war a jox la seen boppam waxoon ci li nga xam ne mooy ahlu zakat rek ñi ñi yow azaka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil aleyha wala mu alif xulubam ba jeex kon men ñoom ñoo ñi nga xam ni ñoom ñoo yooyoo sarax si te ñoom ñoo may ko li si sunu boom njëkk jiite mooy alfuqara alfuqara wal masaakin fuqara yi mooy ñi nga xam ni kat seen am am demewuñ noonu te seen ngor mayu leen ñu génn def li nga xam ni di tàllal loxo am ñiy tuddee almasaakin ñi nga xam ne boo génnee gis leen kon daanaka kon mel ni kon ci jamono ju ñu toll ak dëkk bi nu mu tëddee ñàkkuñu kuñ ko mën a jox di dana ko aajoo sax jege lool waaye kon day jaadoo rek nga xippi xel yi xalaat baax càmbaraat daal di ko koy yët ci sutura ana ci lan lañ koy génnee dañuy wax ni kat li nga xam ne mooy zakaatu fitr di mburum koor na ko yónni saa sam daan defee xool rek ca ay jamono jamu jamono joo xam ni wala dëkk ba ñu nekk rek lépp ca la ñuy dund rek moom lañuy jël daal di génne li nga xam ne moom mooy azaka yi mburum koor kon mu mel ni jamono yi ñu toll gis nañu moom dëkk bi moom wala senegal lépp ci li ñuy dundee ceeb la laaj bi sam mooy bu doon ceeb la ana luñ ciy génne ñaata lañ ciy génnee ci xayma ci la nga xam yoonu saa salaam daana ko génnee wala natuwaay ba mu yoroon. li gën a siiw wax nañu dana toll ñaari kilo ak gën wàll ak liibar am nañu wax ñaari kilo képp am nañu wax sax la gën a yées waaye la gën a siiw mooy ñaari kilo ak gën wàll muy deux kilo cinq cent ci ceeb ñu génnee ko waaye ñu ne ndax danañ ko jox li nga xam ne mooy def génne ko comme alal ndax yoon saa daa ko génne xaalis waaye dina toll jamono joo xam ñu ne lu jaadu la ndax ki nga koy jox am na ko koy jox ceeb wala mu am ceeb waaye kon dana dagan kon ñu jox ko njëg mu xool moom la mu ci bëgg a jënd mu jënd ko amaana sax am na ay bor wala yeneen aajo yoo xam ne moo ko gën a soxal ceeb jox ko ko ko laaj ba samp foofu ñu kon bu dee ci alal ñaata lañ koy jox kon li nga xam ne moom la ñaari kilo ceeb di joxe di jar ak 500 2 kilos 500 li muy jar moom la xayma ci alal ñu génne ko ci misaal koo xam ne moog soxnaam la ak ñaari doomam kon ñoom ñeenti lañ. ñu xool boobu bu nekk deux kilos cinq cent buñ jëlee xool dajale ko xool njëg gi ñaata la yëkkati ko dem ci ñi nga xam ne ñoo ko yellool ñu jox leen ko ci sutura kon daanaka ci liñ ko génne kon euh, weesul loolu waaye nag ànd ban waxtu la mooy waxtu bi nga xam ne moo gën ñu génn li nga xam ne moo di murum koor murum koor waxtu bi gën ci waxtu yi am na ñaari wax ñii nee nañ njëkk ñuy julli ji maanaam ci fajar gi ñii nee nañ ci guddi gi waaye ci tënk rek ñu xam ni balaa ngaa ju balaa ñoo julli ji salaatu fiit iid iid iid bi nga xam ne war nañ ko julli ji balaa ñoo julli ci jumaa ja war nañ ko génne waaw am ñu ko génne nag teel ko génne nee nañ moo gën ndax ki nga koy jox ba ci waaj mu wàccee kon njëkk julli gi moom nañ fexe ba teel koo joxe ndax ki ñu koy joxe daal di mën a waaj boppam bu baax a baax a baax ana ki nga xam ne moom daa bàyyi ba ñu julli ba noppi mosoo ko génne dañu fekkee amoon na ko am na lu mu ko génne mu nekk ba julli ba soo ko génne mën na mën na ci amee bàkkaar ndax xam ne daf na lu ñaaw ndax loolu du digal du ndigal li nga xam ne moom la saa sam joxe ki ko amul nag ba xam ne amul pexe nag mu gis ni moom amul koom googu waaye ndax mën na koo leb bu après dina ko fay bu dee leer na moom bu ko lebee dana am lu mu ko fayee dana jaaru kon mu dem leb bu jekku mu daal di koy fay. kon mbokk yi ñu ngi taxalu foofu di leen yàlla suñu subhanahu taala mu gën ñoo dool dimbali rek xëy na mu amee jumte ci man la waaye ñu ngi ñaan su moom rek gën ñu see defal dégg-dégg bi jaahi seydi saadaati ali xayri salawaati wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu barke Tuuba